welcome to another episode of the Strict Talk Show. which is presenter, our content from EcoTV International. We are right now here in Sanya at the Chinese Fish Meal Company to find out about the incident that happened. As you can see, their cars have been burned and even the company itself has been burned. So follow me, my cameraman. Let's find out. Nana de? Jamal Gamdilla. Tur bi? Mansour. Mansour Si. si euh, Mansour mën nga ñëw wax ne euh, lu fi happen eh, dinaa la wax ci parce que yàgg naa fi am naa fi trieusement maa ngi liggéey fii mhm. mais affaire bi moom si foo si guddi la xewee mais ñun moom ñu ñoon liggéey dañuy mhm. foog affaire bi yëg nañ affaire bi sa teel depuis guddi lañu yëg affaire bi mais xappoon affaire bi bu na ñëw di dina ñëw ba fii nii mhm. mais ku dee si biir dee bi ah, si biir dëkk bi la dee mais dafa métti nag ñu ngi koy ñaawloo mais ñu noon liggéey gaa yi ñoo attaqué ñu fii nii ñu bëgg a taxawal boo suñu boos mu ne bu ñu taxawaloo ñun ñëpp dañu mujjee topp fees bi daw parce que gars dañu ñu bëggoon rey après ñu quitté fii nii dem pare na si àll bi soldats yi ñu sax ñoo ñu génnee foofu noonu. léegi ban yaaxa yaaxa la leen amal fii nii. fii kay moom lu fi yàqa suumoo dafa bari dafa bari wax dëgg yàlla because moto yi yëpp vigole yi fi nekkoon yëpp gars yi yàq na leen. Mhm. saako yi doon liggéey ay trier ñuy liggéey saako yi demaguñu China demagul fenn yëpp gars yi lakka ko amul dis no possible dafa métti dafa doy waar nag mais ñu ngi ñu am nakar kat moom ku dee kii quoi because ni bu dee ngir euh, affaire bu mel nii mm-hmm. parce que nii la mën a jur quoi parce que seetaan moom ken xamul fu may yem parce que da ngay woote seetaan mais xamoo waaw indema mama sali diallo mm-hmm. mama sali diallo liggorono isimɗo mm-hmm. nde probléme o watta tamin tinani probléme o tamin joni noon noɓe no yimɓe sañam ɓe ardini e, e amen ta hino heewi doole dal mhm. joni koɓe tawi min koto nder ɗo minen komin sinaɓe liggotoɗo nder ɗo e joni nde min min nani fitina o minen koye subaka min tini fitina o min min yawanditinde fitina o allah waɗi mawnoram goto gagne hen seeɗa mhm. joni noon guilmin liggey sinowaɓe o noon kala kala bagasuji amen ɗimin gaccunoga gamin walanno mhm. fof sumi ha laaɓi guila e kalisaji amen gilay e paɗe amen guila e comci amen fof sumi ha laaɓe joni noon hay dara men joguitaki e ɗo hen joni noon joni noon on walla mere affaire o no hanniri dal because ɗum no metti ha ɓurti because cumreɗa kalis ma fof yakko tenne ko jifna e maɓe neldata oɗon haalis sa daari ɗum no metti ha min sa ko ɗo ɓe lippi kam e junngo allah wayi taabi ɗo to nder to ɓe lippi kam e junngo a faami on tuma bakkimi baak amon donc min jaami nde jaami ɗo saare ɗo hay ñamgol tami wawa ñamde sa hakke mette a liggo liggorgal ngal gandantuma liggorgal ngal ɗo liggotoɗa a yakkorama hen ɗum ko no metti ha ɓurti hay ñamgol hay sa e galle to a wawata ñamude billahi walla ye jarama sitimlet sitim ko jawi ade isafonumulem ketaja a ah, min ketajam ko amino ya fo ñamen hmm. a keta wala ñama comme min diwol lombi koye kam fatale nata kam fa dale tandi wo kam fa da tandi wala tambi tebulu kanta tambi tebulu mo bela dingo mude fangol dingol londe kam sate dingol on tol sate dingol leti ntol sate dingol tol le o dingol wulu woto belom dingol le ake bari kam fa tambi tebulu kabiri la mo biri la mo nyim senegalere la mo mhm. fa andu le bolu jendarolu kasinkolu ntol ni wol meta janne bari ñene man kejang ntol fan mi ntol mi bati ntol wuruta ni yun be lori ni de be adama yala ni nene man kejang bari bi ñi firatu ne serne firatu ne nata jang kana ñi dang kelo jang murodoro murodoro murodoro muro wole en dum man toro kono nyim fila tunnel andu nyim boyo mbiye yinkete ika bata fona tunnel bala nyin dol e nyim bas nyim baro nyim be jadi satenti wol dol man fila tunneti wol mu lebol dol lebol dol kasinko dol jolalu dol mandinkolu a bele bi jang bar silam bitu nyim fila tunnelu wala na biri ñin ko keta ko dindi o je ah. eh, dindi faale iko yo iko ñin fenco nga fo ceebale ko nga fo nga ko cele junal ko ceebale ñin ko abe lola sai wal ni boro na tay ko na tay usino tem ne be winte la ta biti wo kam fa wala bo ñin dimba bo la fo be keta tente eh, lu faal lu faal ba ah li ah, fa xamoon kat moom mu ngi nii ñëpp ko gisandoo gis nga lépp lépp yàq la eh, ñun booy xool ñun yàgg nañ si dëkk bii maanaam mosu ñoo jotee kenn man mi di wax yow nii sax mosuma am police mosuma dem police bon police naka la mel yaa ngi gis euh, dañoo xëy daal benn jour daal euh, keroog ñu xam nga daa benn sénégalais bu rey ak benn gambien fii nii léegi naa ne sama booy kon bàyyi xel ndax comme li wóorul ndax benn sénégalais moo rey gambien te moo lay filaa la xëy na problème bu naa am dañuy wax noonu pareeguñu rek bi nii si bi sax bu jékki-jékki gis booy commencé dugg si ñu commencé taal di yàq taal gaal yi te yaa xam ne ñun suñu suñu yoon nekk si man taal nañ sama gaal taal nañ sama machine bu nga taxaw nga waaw foofu la boo demee sama machine daa ngi ko suuf la am yow bu ngay xeexal ku tax ku tax ku tax ku tax nga jëm pour xeex ba xeex booy xeex bu dee usine bi moo nekkoon ñoom bu ñuy xeex nañ dem si usine bi daay rek dem xeex foofu si usine bi mais ñun yàgg nañ si dëkk dëkk bi def naa fi kii fukki at ak fukki at ak ñeent mosuma am police mu mel kër gu ma jógee kër gu ma jógee tey dem su ma kër ma neexee su ma ma demaat fa ndax jàmm naa kon nii ah, bett nañu ñëpp bett nañu naan ñun suñu ko suñu yaakaar suñu àdduna ne lii ah, nii ah saar déedéet dina mu saar te booy te boo ko def yëpp nag ah, monsieur monsieur parti gi yëpp ginnaaw gi yëpp ah dañoo xam dañoo xam bu baax a baax sax ndax ñoo ñëw tey taal gaal gi tëb gaal gi taal gaal gi jël gaal rek taal loolu mooy si xeetu yàq la. tur bi. Pambeng. Pambeng ah Pambeng gis nañ ne ah, machine ñu fi nii ñu leen laka lan moo waral lii nii laka bi. li ko waroon nii daal moom xam naa liñ nettali parce que man fekkoo ma ko. Mhm. mais nii dañ daal dañ daan benn xel daal moo demee foofu di Sa Thiès ak ci village amee. ba mu jëm si benn xale ba xale bi yéene ñàkk si bakkanam xale bi ñu jëm sax di ñàkk bëtam bakkanam man kooku bu ma déggee turam rek naan sama doom la parce que xam naa ko am naa ay waajuram mhm. sama doom la nag moom du lu ñu nee li ma njëkk def sax moom mi jiitu sax yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko. waaw ne man maa gis nii yàgg naa fi de. Gambie yàgg na du man maa ngi Gambie mhm. mais problème mi masuma ko am masuñu fa am tam beneen problème waaw teer bi ngay gis nii mhm. sax wax ma Gambie yi fi nekk wala Joolaa fi nekk wala kii mais bépp Sénégal bu fi nekk mhm. ma teer bi nga ma fekk sama teer bi man maa fi jiit ñëpp la ma fekk teer bu bëri si garab ginnaaw garab yële foofu la teer bi nekk ñu ñëw toxal fii bi ñuy toxal fii nag man maa fi jiitu waaw ñëpp Sénégal yi fi la ma fekk wax ma Gambie yi wax ma leen Sénégal fi la ma fekk te ñun suñu liggéey lay mas jàpp mas ñu am ak kenn problème ñuy wax ñun ñoo fi jiit fii ñi fi doon ñi ñi topp dool fi ñëw mais ñun ñuy lébu man mas ñu am benn yi fi nekk da mën fi am na yi fi ñëw xëy na ñoo yëpp xëy na mën nañu wax ne sax jàpp na sax seetaan rek la mais affaire daal waroon na mënoon yàlla nag fi yàlla yemaale parce que Sénégal Gambie benn la ñun am nañ fi jabar am na fi doom Sénégal Gambie am nañ fi lay fi doom kon nag loolu rafet rek moo war a mën am si diggante bi jàmm moo ko si diggante bi yàlla na yàlla boole boole boole xol ñun ñëpp ñu nekk benn waaw jàmm mën si diggante bi lii moom metti na ma si ñu ngi si xaalis bu du jeex la wala li ko del commencé fule ba fii yëpp ay mbaar ak ay mbaal mbaal it xaalis bu jeex la waaw fu mu ñëpp ñàkk nañ loolu te ñun doonuñu si dara waaw yëguñu histoire fekkaw ñu day dégg dañuy nettali ne lii moo lañ si am mais ñu yàqal depuis Maintenant Maintenant trop. i toro aminata jata aminata uh, aminata i mole aminata jata a nga moyle ko kunun suto dal wolun suto dal mhm. fan deje mana paketa kitim kunun ko ba dimanche dum fan keketa tenangoti mhm. a ah, nga moy ko senegalais boy dole tata tibabo la dulata pour suñaro mhm. so tibabo nyim fan nata funde din ko madala atata jati ma ko manni ah, a ah, boyo ñin fana nata paru kata go sungo ni jibe dorong e boyo nyin so hmm. so nata moy wala ñam afta nata moy ko sañam boy sol nyin kamfani min nata nyam paru kana baka sol ta ka jani e ma jibe ko nyim gambian wote e ma jibe ko nyim senegal yol de na baka sol be jani anen ta mu senegal yol ko kam fa e wala fenke bayri ye nyin gambian o min soten wala kam fa e fana wala jindi soole ati wole atinna ina tayin tol mi ma jiiɓe kon tol mo gambiyanol ti andu nabal nabaluwol bi jande kan dindu lef school fis jo janden ka be ka jande ma wo be jibe e ka jammi jam de fonde wor jamte na dindu dindingol jalol jibe ba ya be jani ko botol jibe ja be be jang ya be jani al alibota dam jana ma mambar nge ya be jali jale olli nakkuluŋo dorona man jana bari feŋo fo yalan ko a be na duniya balota bele janta na ñeel be panol be ko no kono feŋo feŋa be be jimbarol le ya bele jani hani feŋ hani feŋa bitan silawo ñu door ko xam nga léegi téye nañ comme téye nañ ko mm-hmm. sénégalais lay waye turam dem na rek ku téye ku tit rek da nga ne eh, sénégalais sénégalais xon da ngay xeex la mm-hmm. ku nekk muñ li nga muñ jos mm-hmm. xamago lan mo xew waye comme mu ngi ci loxo police ñom dañu wara def nank police dox liggéeyam ñu xam ki kan la andal ak kan la andal ak kan moko ko joxoñ kër bi amna xaaliss o yoy waye après lolu ñom mer nañ def nañ Wa dé waye bo bo ñëwé ba tefes war nga xam na né ah gaal yi dé ñi ni yag nañ fi xam nga koo xool at atam fii koo wóolu ba may ko jabar kooku yàgg na fi koo wóolu may ko jabar sa jabar di dem ak moom Sénégal di ñëw sa deret bi jaxasoo ak moom muy jënd sa terrain nga koy jaay kër xam nga yooyu yëpp mu ngi fa waaye yéen comme important na ñëw ngeen xam ñun lu ñu métti ñii ñu ngi nii xam nga dañ taal taal def nañ lu leen ne mbaar bu nekk lu fa nekk suñu buggee wax wax bi du jeex suñu ñaanee ku nga xam ne dem na ñu ñaanal ko yàlla xam nga yërmande ko man su ma la waxee kooku affaire am ak man dawa gëm ci bi dawuma de donc taxaw just dama ak dafa métti de. As you can see, this is what we have for you here in Sanya. Some lost their boats, some lost their machine, and some even lost their small uh, shop that they are earning living for their family. I am your presenter, our content from EcoTV International, and don't forget to subscribe always.